dal leen ak jàmm ci leeral point net tey nag ñuy daal di xëy rek ci xëtam gu njëkk ab douane gi nga xamante ne def na liggéey bu mucc ayib gannaaw rek daal ak ay recette am record la douane sénégalaise au top de ses performances économiques jot ni ñu koy daal di defee la douane sénégalaise dafa daal di rek daal accomplir ab mission traditionnelle gi mu daal def bi nga xamante rek daal dafa ñeel économique fiscale ak budgétaire ren nag daal lu ñu daal di mobiliser ci ab koppar mën nañ ko xayma ci lu toll ci euh, vingt milliards ci suñu koppar ci ab liquidation contre 985 milliards en 2019 ak 925 euh, milliards en 2018 li nga xamante rek daal mooy euh, liquidation googa ñu ngi ko daal di euh, amal rek ci ab système gi ñuy woowee système gaynde ci rek daal amal ab comptabilisation ci lu toll rek ci 95 pour cent de recettes douanières li nga xamante rek daal mooy douane sénégalaise bi li mu daal di amal at bi daal amul dara daal mu ko mën a réaliser maanaam ci histoire am mosu ko réaliser ndax record bi dak dafa battre record yëpp nag am na ay recettes important yi nga xamante rek daal daal dina woon ko def surtout ci covid 19 bi ak ni ni mel waaye tamit loolu terewu leen benn yoon amal seen liggéey li nga xamante rek daal ñu koy amal ci frontière maritime yi ak terrestre aérienne ak ni ni mel waaye tamit ci àdduna wërngal këpp loolu daal lañ daal di xëyee muy ak recette yi nga xamante ne sénégalaise bi nekk na au top ci performance économique gi mu daan amal at gu jot